Barthélemy Dias <laughs> Barthélemy Dias moom la waa coalition Tous Tasar def tête de liste risque la wala stratégie hmm. balaa ñu fiy def une série de questionment dañ leen di mosal as lëf ci li nga xam ne si moom Barthélemy Dias mii

le maire de Dakar que je suis. Vous le savez parce que vous avez été mon avocat. Vous savez aujourd'hui que je suis exclu des listes électorales pendant cinq ans parce que j'ai été définitivement condamné dans une attaque lâche contre une institution de la République. Attaqué avec des vidéos à l'appui, je suis le seul à être jugé. Personne d'autre n'est jugé. Et aujourd'hui, je suis exclu des listes électorales. Ça veut dire que si l'élection se tient en 2029, je ne peux pas être candidat et je ne peux plus être candidat à la mairie de Dakar. Ça veut dire que si aujourd'hui on considère que moi qui suis attaqué dans une institution de la République, je n'ai plus le droit de pouvoir compétir parce que j'ai soi-disant été jugé par des magistrats qui se disent être indépendants. Je préfère ne pas commenter parce que je préfère garder mon opinion personnelle. Je pense aujourd'hui, et là je m'adresse au président de la République, qu'on n'a pas besoin d'une loi d'amnistie pour réintégrer les acteurs politiques. Tout ce qu'on a besoin, c'est de modifier quelques articles de la loi électorale. Parce que tout le monde sait que les articles 29, 30 et 57 de la loi électorale ont été des articles à la limite particulière pour cibler des acteurs politiques et les empêcher de pouvoir être candidats. Donc, je souhaiterais demander au président de la République de bien vouloir reconsidérer sa position. Madame le ministre, je ne partage pas le point de vue de certaines personnes. Je suis un acteur politique, un opposant, j'ai participé à presque toutes les manifestations dites violentes pendant ces 20 dernières années. Je peux vous dire ici que lors de ces dernières manifestations de mars 2021 à peut-être 2024, j'ai été au cœur de toutes ces manifestations. alors Bart la coalition Tostassar, Tassar def ko tête de liste <laughs> risque le ragal du côté. y a agim Barthélémy Moi, man n'ai pas compris parce que Maître Diaz, Judas, euh, euh, en tête de liste pour des élections législatives fii ci Sénégal ci ñi ko xam ne ñoo ko def tam am yeneen i kàngam am ñeneen ñoo xam ñoo nekk ay leader politique am mënoon est nekk tête de liste malgré sa condamnation dafay nekk di présenter euh, euh, ay risques yu bëri ay questions juridiques yu importantes te man j'ai pas compris daal pourquoi Barthélémy Dias pourquoi le choix de Barthélémy Dias nan taxaw def jàngat foofu Barth mom xam na ne condamnation bu mu am mënul nekk candidat ci benn élection mhm. lan moo tax Barthélémy Dias parce que Barthélémy lii da nga mën tax nekkul na dañ koo ràjjee ci liste électorale yi lii mën nag a muccule bu fekkee ne ñii nga xam si ñoom la demanam dool ci élection yi wala les autorités ci boppam demandé wuñu à ce ñu raje ko c'est-à-dire Barthélemy mën na nekk condamné nañ ko mais raje wuñ ko ci liste électorale yi mais fii nii nii ñaari chose moo am mooy biñ ko rajee biñ ko condamné ci jamonoy Macky Sall biñ taf yëng-yëngalaatee dossier bi lan moo tax ñoom biñ ko yëngalaat dossier ba condamné ko raje wuñ ko ci liste électorale comme ni raje woon président Ousmane Sonko ça c'est une question deuxième chose mooy Barthélemy lu tax ñoom ñu xam ne autorités yi fi nekk buñ demandé woon suba nii nii avec na Barthélemy Dias dañ bëgg ñu raje ko ci liste électorale yi dañ koy rajawaat mu perdre tous ses droits civiques ba tax du mën a bokk ci benn élection donc moi je me pose la question c'est quoi le projet mhm. lan moy projet wu jël Barthélémy Dias tek ko ci kaw ci bop liste waa tous tasar c'est quoi leur problème ñaari chose mën na ne ñoom jàngat nan atmosphère politique bi en ce moment ba xam tous mënuñu ko fi am dara mënuñu ko am

kon ñoom kët dañoo rajo woon Ousmane Sonko tere koo bokk woo ñoom it même chose lañ def ci liste yii nii te yàlla xam na ne ñee ni rajo woon président Ousmane Sonko ci njuuj njaaj taf yëngal dong lañ ko tegoon ñii tamit nan leer na buñ buñ rajee Barthélemy Dias ba bokk ci élection yi conseil constitutionnel rejette sa candidature nekkul lañ koo tegul ci yoon ci lu leer nañ lañ ko teg parce que Barthélemy Dias dégg ngeen ko ci vidéo moo avoué boppam que ne condamné nañ ko cinq yoo xam ne mënatul bokk ci benn élection lan moo tax mu mucc nag ñun xamuñu ko mhm. lii bi Macky sàll demee ba xam ne Barthélemy Dias mii kët ak Khalifa Sall am nan benn communication buñ teg sur le marché sur le terrain politique dana coppet Barth yëngalaat son dossier Bart hmm, di ki di ki ñu ne ko drill condamnation nëpp nëppal nak na ko duñ la raje nii la demee ba gis ngeen bi Macky Sall ba ki Dembo Ndiaye li Bart doon ba bëgg nekk nek gëree di mën a mana mën a xeex bi Macky Sall ne jël naa élection randal ko def naa lu ma neex jël naa def coup d'état constitutionnel calfaañe naa seeni ak seeni yelleef ya yéen sénégalais yi Bart dana mut yamul ci ne mut kese gis ngeen show bu mu def ba y ba ne élection du élection ça veut dire que Barthélemy Diaz de mon point de vue je sais qu'il roulait pour Macky je ne sais pas pour quelle raison parce que gis nañ bu posture face à Macky donc ba am retournement de situation ñu gis Barthélemy Diaz de sorte ko

condamné duñ ko condamné kenn rajowu ko ci liste yi c'est-à-dire que am na luñ ko bàyyi doon porox ndoll boo xam ne si dina mën a def le sal boulot de Macky Sall mu en échange ñu bañ ko rajee ci liste électorale comme ça mu mën a am toujours éligibilité mais ba léegi rëccul parce que aux autorités yi fi nekk il suffit ñu def nii rek mooy da ngay dellu ci posture position bi Ousmane Sonko nekkoon avant les élections mhm. te nag waa ëxlu bëgg réew mi ñun les patriotes avec un grand P de ce pays ñun les patriotes nekk yi ginnaaw Ousmane ko dañ koy ñaan yàlla ak autorités yi fi nekk dañ leen di ñaan leen ko dagaan bu kenn laal candidature Barthélémy Dias jaas ah, même bu jaree sax modifier ay loi avant yi ñuy dem ci élection yi nañ ko modifier pour que mu mën a bokk moom Barthélémy Dias mu mën a nekk tête de liste te comme nee mooy borom Ndakaaru nag bu buñ sañoon mu nekk départemental et pas national waaye nag comme ñoom loolu lañ gis national nañ ko ba foofu na bokk ci élection yi moom ak ñu mel nañ moom moom buggaan ñëpp buñ ne fi kenn perdre nga sa benn benn benn droit civique ñëpp bokk ñu làppal ko ba mu nooy ñëpp xam ko xam na duñ moroomam waaw waaye nag vraiment, ça, ça, présente des risques, euh, euh, vu sa, condamnation, vu sa, radiation des listes électorales qui peut, qui peut être possible, soit nous devons préparer ou l'autorité tout de suite, avec des risques juridiques euh, pour les listes électorales, en tout cas, nous savons si nous avons liste parce que dans le parti, il y a des pastifs. ca aussi li nga xam ne si moo ci gën a risque mooy kan ci réew mii la ñuy nettali histoire Barthélemy Diaz un tueur en série dañu man baa def ma outrage un tueur un meurtrier def ko ci sa liste ban impact la mën am sur l'opinion publique et la légitimité politique ak li nga xam si mooy trahison def Ousmane Sonko ak yeneen ak yeneen yi Barth def génn fi di wax waxi naq sa kandang di dof dof ci kaw nit ñi buñ ko on est sûr que ne Barthélemy Diaz du profil bu baax bi bu tax waa tous tasar bàyyi fi ñepp teg ko ci kaw en plus de ça dañ leen di xamal rek ne Barthélemy Diaz mom ñun ñoko xif pour dem élection dañ ko xif daal lu mu mën a am na bokk dégg nga waaw leen góor <laughs> wallahi Azim Barthélemy Diaz hmm. wallahi Azim kii mooy traître rek